Muhammad mooy suñu yonent ku ko bëgg billahi ñun bëgg nañu la Sayyiduna Muhammad mooy suñu yonent ku ko bëgg billahi ñun bëgg nañu la ku ko bañ ko mën a doon bañ nañu la Sayyiduna Muhammad mooy suñu yonent ku ko bëgg billahi ñun bëgg nañu la ku ko bañ ko mën a doon bañ nañu la ñi ko bëgg di ko roy ñun ku ko bañ royuloo ko yorom bëgg nañu ko nañ ko gépp bëgg nag waaye am na yoo xamante ni bu ñu taxawee di ko booleek yàlla ñun ci boppam ñun ñoo war a bañ waruñu nangu yenn yi lii tax nag chaque jour ibaadu yi fu ñu bëgg a jaar dañu fay jaar chaque jour ibaadu yi dañuy am ndam ci suñu kaw c'est parce que dañ ñëw wax la alxuraan ñëw wax la hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax la loo dul dindi ñun nag li ñu war a dem mooy ñu jéem a jàng yi alxuraan ak hadis yi jéem ko leeral taalibe yi ñu mën a xam mais di xaabaabal affaire yi ëpp na quoi dañ waxante dëgg mais li ëpp na عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلم